asalaamaaleykum mbokk yi teel a altine fukki fan ak ñeent ci safar muy weeru diggi gàmmu di ñaareelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak fukki fan ak ñeent bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la konte ca altine ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ko ca watu wala ko ca daloo altine ju nekk sunna la ci ko man mu wor ko ñaanu bis bi yow yàlla yàlla nag ma soril jikko yuñ sib yi ak bëgg-bëgg yi ak jëf yi ak jàngoro yi allahuma janib nii munkaraati al axlaaqi wal ahwaai wal amali wal adawa allahuma janib nii munkaraati wa axlaaqi wa ahwaai wal amali wal adawa xadis bis bi jëleef na ci Kaab ibnu Malik yàlla na yàlla gërëm ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana békk xar kanam gi day leer ba mel na dogitu weer te loolu xamoon nañu ko ci moom xadis bi Buxaari ak Muslim nettali nañ ko an Kaab ibnu Malik radiyallahu anhu qaal kaana rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ida surrastanaara wajhuhu xatta ka annahu qitiatu qamarin wa kunna naarifu dalika minhu rawahu buxaari wa muslim waxtu julli yi suba waxtam dana tàbbi 5 heures 39 juróomi waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent tisbaa 13 heures 37 benn waxtu bu tegal fanweeri simili ak juróom-ñaar takkusaan 16 heures 37 ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñaar timis 19 heures 38 juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñett gee 20 heures 39 juróom-ñetti waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent loolu mooy waxtu julli ci Tuuba ak li ko wër